ñu di ko tàllal suñu yoxo di ko ñaan di ko ne yàlla nga ñu may kendalug jàmm amin ya rabbal alamin waaye duñu deñ di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayina bisalaam wadxilna aljannata daaraka daar salaam amin ya rabbal alamin yal nañu yàlla boole defal la ñaan bi di tekki incha allah mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom moom mi yore jàmm te mu am jàmm ju doy te doyowu ko dara ñu ngi ko naan yàlla nga ñu may jàmm mboolem xeetu jàmm yi ci yow yàlla la ñuy bàyyeekoo yàlla nga ñu may jàmm way mboolem xeetu jàmm yi ci yow yàlla la ñuy dellu yàlla nga ñu may jàmm waaye yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla bu ñuy dajeek yow mu doon ci jàmm waaye keroog bés pénc ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may xiiwal ak wërsëg ba toll ni dug ñu baaxee ñu bokk ci ñay dugg ci kiiru jàmm ba nekk fa yow di arjan kon yàlla ñu yàlla defal jàmm yu ni mel mbokk yi ñaan bi nag yàlla dong lañ koy ñaan duñ ko ñaan kenn ndax kenn yoru ko duñ ko ñaan feneen ndax nekkut fa feneen ca yàlla ba mu nekk te moo ko yor mu nekk ci nguuram ñu ngi koy ñaan yàlla ñu yàlla defal la ñaan bi di tekki amin ya rabbal alamin ndax lu tax ñu di ko ko ñaan moo ne uduuni ñaan leen ma astajib lakum ma wuyu leen moo ne ñu ñaan leen ma ma mee leen uduuni ñaan leen ma astajibu lakum ma wuyu leen ci la ngeen may ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa mu di ñu garantil ñaan yàlla moo nekk yuuru jaamu yàlla addu'a u muxqul ibaada bu dee jaamu yàlla bopp bu am ruux la wa ñu ruux bi walla yuuru bi mooy ñaan yàlla waaye bu dee dëgg dëgg dëgg dëgg jaamu yàlla jëmma la joo xamante ne dafa war a mën dund dafa war a nekk lay dund ñu ne ñaan yàlla mooy ruuxu bay alimenté jaamu yàlla ba tax na yonentu bi nañu ci maana xadis addu'aau huwa al ibaada jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg mooy ñaan ñaan yàlla mooy jaamu yàlla dëggantaan ba tax na ba léegi yenentu bi wax nañ ñu ne ud'u llaha wa antum muqinuuna bil ijaaba na ngeen di ñaan yàlla waaye nag na ngeen làmboo ngëm yàlla ak kóolute bu toll ni yàlla dina nangu la ngeen koy ñaan ñu ne nangu ñaan ba jaam di ñaan boromam subhaanahu wa manees nañoo wax ne dina nangu ci ay béréb yu fasante ko moo ne ñetti béréb ya joxoñ ne képp ku ñaan yàlla buur yàlla dina ko nangu ci ñetti béréb yi nga xamante ne amaana sa sàggante doomu aadama mooy tax ba doo mën a xàmmee ne yàlla nangu na say ñaan ñu ne njëlbeenu étape ba yàlla di nangu sa ñaan mooy màndarga ba ngi gis ne la nga doon ñaan yàlla antu na am na waaw yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma may oto yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma may kër yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma may borom kër wala ma ngi lay ñaan yàlla yàlla nga ma may soxna yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma may doom takk ndeer yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma may sama yoonu tukki bi mu antu ma am papier ya war a permettre ma tukki xeetu ñaan yàlla ya ngay ñaan yàlla buur yàlla tabaaraka wa taala nangu sa ñaan ba nga gis ne la ngay ñaan lii la lii nga doon ñaan yàlla defal na la ko mu ngi nii nii laa ko bëgge amuloo ci benn sikki sàkk ñu ne ñaan yàlla dina nangu ci anam boobu mu des ñaari anam yeñ leen bëgg andil te yonent bi joxoñal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam moo ne daf ñu ne udu llaha dangeen ñaan yàlla udu llaha nekk leen di woo yàlla udu llaha nekk leen di tallal seeni yoxo di ñaan buur yàlla wa antum muqinuuna bil ijaaba yéen fekk yéena ngi lamboo bu toll ni yàlla dina nangu seeni ñaan ba tax na ñaareelu palaas ba nga xamante ne fala buur yàlla di nangoo ñaanu doomu aadama bi mooy yàlla mën naa jël sa ñaan mu jaarale ko sa diggante lépp lu la war a dal ci xeetu mettit walla ci xeetu tolof-tolof walla ci xeetu loraange xeetu musiba yoo xamante ne nar naa dal ci yow yàlla gis na ni yow nekkoo di julli ay naafila yu bari amaana nekkuloo di woor wooru naafila yu bari amaana sa dem ak dikk ci jàkka ji taxu koo bari waaye amaana sa joxe sarax taxu ko bari waaye la nga nekkee di def mu doon lu gëna a bari mooy tàllal sa loxo yàlla di ko ñaan yàlla gis ni kii dafa bari li may ñaan te loolu mu may ñaan wóor na ko ne man dong man rekk maa ko yor wóolu bi ma wóolu ci li may ñaan ni xam na ne man dong maa ko yore te sama nguur la nekk ba tax na xaaral ma jël ñaan ba may ñaan ni ma jaarale ko digganteem ak lépp lu ko war a dal ci lu metti amaana sa doom wal naa mën a loru fenn ñaan ba nga doon ñaan yàlla jaarale ko digganteem ak lu ko war a dal ci xeetu loraange amaana sa soxna war naa mën a loru fenn waaye ñaan yàlla ba nga dëkkee di ko ñaan amaana yàlla dina jël ñaan boobu dugal ko sa diggante sa soxna bu nar a loru ca li ko war a dal amaana sa wéyjur bu jigéen ñaan ba ngay ñaan yàlla yàlla mën na jaarale ñaan bi digganteem ak lu ñaaw lu ko nara dal amaana sa wayjur bu góor amaana kenn ci sa mbokk yi amaana ci sa jëmb ji sax yàlla jaarale ñaan ba nga ko doon ñaan sa diggante musiba bara nara dal kon béréb boobu tamit manees nañoo njortu ne yàlla dina nangu ñaanu doomu aadama ba kay tàllal loxo mu di ko ñaan ñu ne ñetteelu béréb ba mooy keroog bés pénc bi nga xamante ne amul dara la fay njëriñ doomu aadama lu dul ka yàlla yërëm waaye nag bu ñu xoolee ne danga nekkoon ci àddina di bëri la ñaan yàlla waaw di gën bari bëri la ngay ñaan yàlla ñu ne yàlla daf ne inna allaha laa yuxlifu yàlla du wuute yàlla du faussé rendez-vous mu dëxalanteeg doomu aadama bi ndax yàlla rendez-vous ba mu siq ak doomu aadama bi mooy oduuni ñaan leen ma astajib lakum ma may leen oduuni moo ne woo leen ma astajib lakum ma wuyu leen oduuni sàkku leen fa man yàlla la ngeen tële te ngeen bëgg ko astajib lakum ma defal leen ko kon képp ku nekk di ñaan yàlla ca li nga tële ak ci li nga mënul te nga soxlaal ko amaane yàlla bu wuyoo ñaan bu nangoo sa ñaan mu wuyu la ca lankay ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mun na laa dencal nangu ñaan bem la war a jox fi ci àddina ëllëg bés nga ñëw ak sa njaaxle buur yàlla ne la lang ma doon ñaan ca àddina boo gisee joxuma la ci dara meyuma la ci dara wuyuma la ci lenn fii laa la doon xaaree nga ñëw ma fay la ko kon lag ma doon ñaan àddina tey la amal njëriñ tey la la amal njëriñ yàlla fay la lan doon ñaan yàlla jox la xéewal yan ko doon ñaan fi ci àddina mbokk yi nañ leen bari lu ñuy ñaan yàlla nañ leen bari lu ñuy ñaan yàlla ñaan yàlla ëpp na kenn di ko sàggane gën ci mbindeef di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam taanoon na tàllal loxoom di ñaan boroomam subhaanahu wa te moo moom lañu ñu wax ne li yaxfira laka allahu maa taqaddama min zambika wa maa taaxar wa la yàlla buur bi wax yow jéggal nañ la say bàkkaar yépp yow la ñu jéggal mboolem bàkkaar yi nga jiital yi nga war a def ak yi nga deful ya nga nar a def yépp jéggal nañ la ko wa yutimma nicmatahu aleyk wa yansuraka allahu nasran aziza yow la yàlla jéggal yow la yàlla matali xéewalam yi ci sa jëmm te yow la yàlla xettali xettali bu mu xettaliwul kenn sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu kii moo nekk di tàllal loxoom di ñaan boroomam subhaanahu wa taala am na riwaaya ba ñu naan yonent bi da doon ñaan yàlla ba kaalam ba mu tegoon ci mbagg bi da doon wadd abubakar siddiq radiallahu anhu wa ardah mu jël kol bi di ko delloo ci mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp taraayu ñaan bam doon ñaan boromam subhaanahu wa kon nga déggee ci ne ñaan yàlla mooy la yàlla bëgg doomu aadama bi mu di ko ñaan subhaanahu wa ba tax na réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar bam leen di amal ci waxtu ji ñu nit ñu dégtal leen ñaan bi nga xamante moom la yonent bi sallallahu alayhi wa tegtal ne képp kuy war waruwaay dee ko ñaan yàlla ne xéewalu waruwaay boobu yàlla la ko jox bu duwutoon xéewal yàlla yàlla xéewalal bi nga mën a jëfandikoo waruwaay boobu yàq waruwaay bi rekk ana noo koy créer ana foo koy ame ila axirihi waaye ndegem yàlla moo la ko tàggatal moo la ko créel yonent bi sala sallam nee na képp kuy jëfandikoo waruwaay boobu dafa am li nga war a ñaan buur yàlla tabaraka wa taala moo ne moo nekk du'a uruqubu daab ñaan la boo xamante ne dinañ ko ñaan jamono bu ñuy war lépp loo xamante ne waruwaay sallallahu alayhi wa sallam nañu nee nañu boo demee bay war sa oto boo demee bay war la nga xamante ne mooy waruwaay ba nga yore moo xam transport en commun la moo xam privé la moo xam particulier la waruwaay ba ngay waru jow mi koy waaj a war yenentu bi nee na na ne bismillah maa ngi tàmbale waruwaay wi ci turu yàlla boo toogee na nga wax alhamdulillah nel mboolem xeetu cante yi ñeel nañu yàlla boo ci noppee nag nga ne subhaanalladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah boo ci noppee na nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga teg si ne subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu laa yaghfiru zunuba illa ant mbokk yi ñaan bi la yonent bi joxe ne képp kuy war waruwaay ñaan bi dafa war a nekk la nga mokkal nga làqu fa yàlla nga muslu fa yàlla nga sàkku yàlla mu aar la ci kaaraange yu matale ya nekk fa moom moo ne ñaan bi mooy yonent bi nee na képp kuy waaja war waruwaay na nanga tudd yàlla na nga ne bismillahi maa ngi tàmbale waruwaay bi ci turu yàlla boo ci noppee na nga ne alhamdulillah mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla boo ci noppee ne subhaana alladi haada ci tak callaange set ak callaange ñeel nañu yàlla buur bi ñu tàggatal yénkeewal ñu lii nii waruwaay wi wa maa kunna lahu muqrinin ñun ñu ki ko war a mën a suñu bopp doonuñu ki ko war a amal suñu bopp te waruwaay bi ni taaru taaru ni mu yéem yéem wa inna ñun ak waruwaay bi yépp ilaa rabbina fa suñu borom la mun xalibuun muy suñu wëlbatiku kaay bu ñu jeexalee dund àddina bi ñun dañuy dellu fa yàlla waruwaay bi ni mu yéem moom it day dellu fa suñu borom subhaanahu wa boo ci noppee nga daldi jallar bekku daal di sant yàlla bu tollu ni danga naan alhamdulillah mbooleen xëytu cant yu matale ñeel nañu yàlla nga wax ko ba ñetti yoon boo ci noppee nga ne allahu akbar yàlla màgg nga baamu kàddu gi ba ñetti yoon boo ci noppee nga ne subhaanaka allahumma mboolim xëytu cet ak cellaange ñeel nañu la yow buur yàlla nga daldi gàttañlu nga daldi toroxlu sa bopp ci kanamu yàlla ne ko inni zalamtu nafsi man ku dëkki di tooñ boppam laa de kon ma ngi lay ñaan faghfir li yàlla nga ma suturaal yàlla nga ma jéggal ci tooñaange ba ma dëkki di ko tooñ sama bopp innahu li fi nekk daal mooy laa yaghfiru zunuba amul kenn ku fi nekk di jéggal baakaar illa illaa anta kudut yow yàlla kon ma lay ñaan yàlla nga ma jéggal yàlla nga ñu jéggal mbokk yi ñaan bi képp ku koy jàng jamono bi ngay dugg ci sa waruwaay la si yonent bi jublu mooy kaaraange bi nga xamante ni yàlla dina la ko aar keroog boo jógee ko fa nga jëlee waruwaay bi ba keroog ngay àgg fa ngay jëm ndax tegtal bi mënees nañ ko rootee ci alquraan keroog gaalu yonentu yàlla nuux alayhi salaam ba ko yàlla digalee ne ko nanga nga yett gaal ndax mbugal buy wàjj wàcc ci say xeet ah dina laal ñu bari waaye ñu bari dinañ ci loru kon képp ku ci bañ a loru na tàbbi ci say gaal te amul kenn kuy nangu dugg ci sa gaal ku dul ki gëm ànd ak yow yonent yàlla noox alayhi kon gaalu yonentu yàlla noox ni mu muccee ci loraange ba nga xamante ne mooy la nekk ci gaal gi képp ku jàng la nga xamante ne mooy ñaan bi noonu ngay muccee ci la nga xamante ne mooy loraange waruwaay boobu nga war ba tax na ñu réew mi fm 97 point ci waxtaanu fajar ba ngay di ànd ak ñun ci waxtu wi a ah, ñu daldi leen ko baaxee waat waaye képp ku topp waxtaan wi amaana ñaan bi du la raw te ñaan bi du la rëcc xanaa ñu baamu waat ñaan bi rekk mooy bismillahi alhamdulillah subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru zunuba illa ant bismillah alhamdulillah subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu laa yaghfiru dhunuba illa ant mbokk yi lii da di ñaan wi nga xamante ne ka yàlla yónni ci xeet wi di ar mustafa mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima bokk na ci njàngaleem yu matale yi bokk na ci njàngaleem yu mucc ayib yi bokk na ci njàngaleem yu rafet ñi mu baaxe askan bi di xeetam sallallahu alayhi wa xam ngeen ne tax keroog képp ku yàlla dogal nga dem ziyaare ko foofu mu tëdd ci bareeru or ba nekk ci jàkkam ja ca Madinatul Munawwara bokk na ci kaddu yaa yu koy nuyu ne ko assalaamu aleyka ya nabiyallah assalaamu aleyka ya rasulallah assalaamu aleyka ya habiballah qad ballagta risalata وأدلت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين nii ngay nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wa nga daal di déggal la ko yàlla yónni ne ko matale nga ko moo tax nga ne ko maa ngi lay nuyu yow mi yàlla yónni maa ngi lay nuyu yàlla jàmmi yàlla nekk ci yow yow mi sopp yal jàmmi yàlla nekk ci yow yow mi ñu génne ci lëndemaayu bokkaale yàlla lëndemaayu ñàkk xam yóbbu ñu ci leeraayu wéetal yàlla ak leeraayu xam-xam yal na jàmmi yàlla nekk ci yow yow mi yàlla tànn ci jaamaam mi soppal la boppam yónni la ci jaamaam maa ngi seede ni ca dëgg dëgg dëgg matal nga mission ba la yàlla jox leeralal nga ko matal nga ko àggale nga ko waaye maa ngi seede ni tamit lépp li la yàlla xamal ci lu baax partagé nga ko ak say xeet waaye lépp lu la yàlla xamal tamit ngir lañuy sorel ci yërmande yàlla wax nga ñu ko ba leer nañ amul dara li nga bàyyi waaye ñoo ngi lay seedeloo ne tamit laaye nga biir askan bi laaye nga ñu biir nasaxtal umma laaye nga biir xeet bi waaw amul dara li nga ëmb ci sa biir ci lu baax lu dut wax nga ñu ko te yàlla seede na loolu moo tax mu ne ñëw ci alquran bil muminina raufun rahim ñeewente ba nga am ci way gëm yàlla ñi foo ko natt weesu na ko cofel ak yërmande bi nga ëmbal way gëm yàlla ñi foo ko takk weesu na ko ba tax na nga ne ko wa nasaxtal umma laaye nga wiir askan wi ak xeet wi waaye nga ne ko wajahat eh, fillahi xaqa jihaadihi góor-góorlu nga taxaw nga xare nga fa yàlla taxawal nga diine bala yàlla jox ci anam bi nga xamante ne noonu nga ko taxawe te dañoo di ko def ba keroog buur yàlla jëlee ci kaw suuf si sallallahu alayhi wa kon képp ku dem ci bërëb bu sell boobu yonent bi nekk ci barrière or ba ca Medina nga nuyoo ko nii sargal ko nii bàkk ko nii kon dañ ne yow boo fa jóge ko boo ñëwee comportement yonent bi buñ ko gisul ci yow kon dañ la naan est xam nga fi nga jóge est-ce que xam nga fi nga demoon sallallahu alayhi wa sallam bérébam bu sell boobu képp ku fa dem nga xam li la fa yóbbu nga xam ci ki nga dem ziyaare wallahi dañ ne boo ñëwee war nañoo xàmmee ci sa comportement ne kii de kat fu mu jógee nii am nañ jeexintal bu mu des ci jëmmam sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla wërsëgal yal nañu yàlla wërsëgal ñu fekki ko foofu mu nekk dem ziyaar ko yàlla ñu yàlla wërsëgal ñun ak képp ku ko bugg a ziyaare yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu war a mën a dem ziyaare ko yàlla ñu yàlla saxal ci diine bam ñu andil waaye yàlla ñu yàlla soppaloo njàngale bam ñu fi bàyyil sallallahu alayhi wa mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañ ci tànnal la ci gën a rafet waaye dañ ciy jëfe tamit la ci gën a baax amin ya rabbal alamin mbokk yi kon bi léegi ñoo baamu ñaan ba yonent bi joxoñ ne loolu mooy ñaan ba ñuy dugg ci waruwaay jamono bañ leen di jëfandikoo mooy du'a bu daab ñaan bii de ñaan la boo xamante ne yow mi waaj a war waruwaay moo xam oto la moo xam avion la wala gaal lu doon yonent bi nee na na nga ne bismillahi ñetti wax alhamdulillahi ñetti yoon woo ci noppee nga jàng subhaanalladi saxara lana haada set ak ca ngi ñeel nañu buur bi nga xamante ne moo ñu wërsëgal moo ñu tàggatal waruwaay bi wa maa kunna lahu muqrinin ñun de nekkuñu woon di ko géem a xam bi di ko géem a defar bu di mbaaxu yàlla si ñun waaye waruwaay bi nu mu taar taaru ak lu mu yéem yéem wa inna ila rabbina la munqalibun ñoo ko waruwaay bi fa suñu borom la ñuy dellu boo ci noppee na nga sant yàlla ñetti yoon wa alhamdulillah trois fois nga wax allahu akbar trois fois boo ci topp boo ci noppee na nga ne subhaanaka allahumma mboolem xeetu ca teg ca lange ñeel nañu la yow yàlla buur bu kawe bi inni zalamtu nafsi man ko dikkee tooñ sama bopp la kon maa ngi lay ñaan faxfir li yàlla nga ma jéggal li fi nekk mooy innahu la yaxfiru zunuba illa ant amul kenn ku fi nekk di jéggal baakaar ku dul yow yàlla kon nag yàlla nga ñu jéggal kon boo waxee ñaan bi dugal nga sa bopp ci sécurité bu mat sëkk incha allah di nga dugg sa dugguwaay ba nga dugg ci ci tranquillité ak ci jàmm waaye dinga nga àgg ngay jëm ci jàmm su ko defee mbokk yi lii mooy la leen réew mi fm 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi ñaan yàlla suñu boroom jalla wa ala an yurzuqana xusnul xitaam allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma mawla wa nicma an allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtaanina wa aslih allahuma aimmatana wa wulata umuurina allahuma ya rabbi nasaluka an taxfir lana zunubana wa xafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abraar baaraka allahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu ma tasma'un assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu